léegi euh, bu leen fàttee Doudou Ndiaye Mbengue dina ñëw ci émission bi jeudi incha allah parce que anniversaire am ñu ngi koy préparé ay décembre euh, euh, pour yow itam il faut ñu waxtaanee li ngay waajal Mbàkke dañu laa fonk lool ba tuddee la ay bis yoo xamante ni yaa ngi koy pare Pape Diouf mooy invité d'honneur bi télévision Futur Média dina fa nekk ex a ngi pare ak bijou loo nar ci yooyu. waaw euh, Pape Cheikh le trois la. Mhm. ak le 4. Mhm. muy le trois bi. Mhm. Euh, le 4 mooy match bi ñu ma tuddee muy match zone. le trois zone bi waaw. moo léegi comme man je suis de Mbacké te Mbacké rek laa am. alors ma décidé offrir leen benn concert. Euh, gratuitement. ci boulevard bi. ak sama ay moyens. tuuti. ak mhm. lu ma waa expressé jàppale may remercier Malick Thiam. Malick Thiam mu baax mi je profite je vais ah, ah, di profiter ci occasion Pape mhm. Cheikh. Mhm. di ap di di di def appel autorités yi nekk Mbacké. parce que c'est pas évident man ma jëng loolu. te ay alors dafa diis torop ci dépense. ci lépp dafa métti. te alors jëngu naa ko pour. def ko alors man damay lancer appel. doomu yi dëkk Mbacké ñoom ñëpp. ñu jàpp ci parce que c'est pour la jeunesse de Mbacké te ñun amuñu lu dul suñu ay autorité mhm, man ci la bokk j'en fais partie alors commencé nag ci maire Mbacké muy Iba Gueye mhm. muy premier magistrat de la ville alors Iba Gueye na ñëw ku baax la na ñëw na ñëw non wax li fi nekk ay la mer na sérieux pratique parce que mënu ma am initiative def mënu ma am def concert. <laughs> concert gratuit. di nga fay di nga déplacer ay nit. Mm-hmm. d'autant plus que euh, euh, télévision Futur Média mooy ñëw couvrir si événement bi. comprendre donc du lu ndaw. su suñu demee ba ay jàmbur di ci jàpp. di ci def uh-huh. seen alal. Uh-huh. alors lu tax waa dëkk ba moom ñoom tam mënuñu ci jàpp. léegi ay dama xam nga nu may def xam nga nu may def sama sama yaay médiateur la. sama yaay dafa mën médiation. sama yaay laa lay booleel mu jàpp ci dégg sama yaay dafa mën xaaral ma wax wax yaay mu jàppale la ci. yaay. <laughs> yaay. <laughs> mais ni nu may def. yaay dégg Ayda mer de yaay. Ah, ah, waaye Ayda du mer ndax Ayda maa ko jur jur la. <laughs> yaay damaa fiir de yaay bu ci boole Ayda. waa ma ne comme comme Mado moo réglé léegi ñëpp dinañ réglé. waaye Ayda. gis naa lim la def. gis naa waaye yow yaa ko njëkk jooyloo ndeysaan moo tax mu tekki euh, euh, karaw yi tamit loolu lépp tamit da ko koy baax <laughs> ba pare yàlla def yàlla def xam nga ni man ndey ji seex laa te samay seex quatorze seex laa am loolu kenn su ko gis walaay eh. macha allah macha yàlla na yàlla naf cat yaa gis nga sa doom tam sos oui kooku moom dama am faiblesse am nag waaw waaw loolu moom defe naa ni euh, su ma ko waxee ci dina xam ne moom moom yaayam laa waaw ñu ngi koy jaale ñu ngi koy jaale ñu ngi koy jaale maa ngi koy baax sœur bi gaañu moo doon seen yaay waaw koy jaale bu baax wallaay wallaay ay da tamit maa ngi lay jaale zëy bu baax a naa ak ñoom faatu te oh, amuñu suñu am benn problème wallaay wallaay ñoo dama ko yëg tardivement ma ko yëgee woo maam ne ko lu tax ngeen yëg ñoom ñëw nañ fa ñoom ñëw nañ fa waaw yaay booy xam nga léegi nu ñuy def. yaay suñu toogee rek dañuy àbb happiness. voilà yaay xam nga lu ma bëgg man tamit. waaw dama la bëgg a mosal ci meilleur bi. ma indil la ko léegi nii en direct. na ñëw en direct léegi man naa. ban nga bëgg chocolat wala meew. defe naa ni chocolat bi dina baax ci man. kon xaaral ma defaral la meew chocolat bi. waaw ani ani doomu bopp bijou ak. excité voilà kontaan naa ci yéen. yóbbul ma ko léegi nii directement. na ñëw en ñu koy xool. voilà mu ngi la koy indil ak kaas. Ah. wallaay wallaay mais sànq. Euh, waaw euh, mon fils. waaw yaay. xam nga Zos li mu rab. waaw ak Aida cosaan bi mu wëy. waaw ëpp na ëpp na. mais yaay. ah am na lu gën a garaaw. ah Youssou Ndour. Ah. dafay génne album bu bees. waaw lu rëy. indiwaat tradi tradi moderne. lu rëy. xam nga fu histoire bi xewee. waaw Youssou dugg këram. waaw piscine ba fees. Ah. mu ne gars yi ngaccal leen ma ndox mi. bu waxati li Aïda Samba ngi toog du ma ah. bàyyi ma fen waaw l'histoire s'est passée ci biir piscine. bu waxati li Youssou toog ci biir pax bi. waaw ak ñamu àndal. waaw daa di indiwaat démb. ñu koy kooraa ay Samba Jabare Samb. alaaj Njaga Mbay ay ay Ifam Bondi. ay ay ay woy yoo xamante ni boo ci dégg. mu fàttali la lu bëri. Euh, yaa yaa ngi fàttaliku Ndakaaru début début début 60 fin 60. waaw xam nga jamono yooyu bu ñu jib si waan euh, euh, feetu indépendance. waaw da ngay sentir fête ci dëkk bi. waaw da ngay sentir fête xam nga loolu gëj na am. gëj na am nag loolu moo tax mu indiwaat fàttaliku. léegi nag demb dama ko doon saraxu. Ah. pour mu ñëw yeewu leen. mu ne ma bëgg naa ñëw yeewu leen. waaw mais est-ce que yéen xam ngeen valeur fàttaliku bi. yii na ñëw wax ñu ko. ba léegi nii nag la ñu ma wax ni. Ah. Youssou finalement d'accord na. Ah. pour ñëw suba yeewu leen. lenn laa lay ñaan yaay. waaw suba boo mu nee teel a ñëw. waa damay ñëw foofu. yow. ah Boubs. waaw. Euh, docteur Massamba Gueye. waaw faatu Guewel. waaw Xaar Mbay ma jaaga. waaw ak euh, Soda Mama Fall. waaw. dina am ñeneen ñu may ñëw jàppale. waaw waaw bëgg suba ngeen teel ñëw. ay huit heures ngeen jàppale ma rapport. yow ma ne laaj ma li neex. waaw suba ci yeewu leen laay xëy. kon suba yeewu leen ngay xëy incha allah yaay maa la ko ñaan yal nañ yàlla may fekkeek tal ma doog lay defaral wallaay mu ngi may defal mayoo ndeysaan mi nga xamante ne ñàkk ko naan erreur la erreur la te tamit ku yeewu naan meilleur sa yëppay meilleur. ndeysaan <laughs> déggoo ma de. yaay Ayda mu ne invité na la ci xewam bi nag. waaw waaw Ayda. waaw yaay. dañ lay nekk. amiin waay amiin waay amiin waay. amiin amiin amiin amiin macha allah macha allah macha allah macha allah macha indi indi ndox bu bi macha allah. yaay kon ñu kon ñu bàyyi la nga pare. waa xew bi xew lan waaw. xew bi mooy dama dañ ma marraine. waxal ci micro bi waaw. kii dañ ma marraine finale zonal. waaw léegi nag ma offrir aussi benn concert. Euh, gratuitement population bi jeunesse Mbacke bi yëpp. fan la Mbacke. Mbacke incha allah le 4 yow ma def nañ ko ko fañ ko ko war a defee. le 4 mais maa xam baayam. ne incha allah le 3 bi. dañu fan si club bi les amis de Aïda dañu def benn tànn beet bu mag. macha allah boo xamante Dakar na door pa ñoom ñooy ñëw couvrir ko. incha allah maa ngi woo population bi yëpp mag. ndaw bàyyi ma kenn mënu ma sama ay am di jàmm. di wax xam naa ne waa Daara Jolof dinañ mer mais seen bos dina ñëw. incha allah Aïda Aïda. Mhm. xanaa boulevard nga koy defee. ah waaye yaay lu tax nga xam. ah, ah yaay miin nga foofu de. Mbacke Mbacke laa uyu ah, ma uyu ma Youssou Ba boo nga fa. tonton Youssou Ba bul fàtte ne bu sëy bul fàtte ne Ousseynou Absa ma nga fa. ak tonton Youssou Ba waaye bul fàtte ne gaawaan lañu. waaw ah, yow tamit. bul fàtte ne numbe numbe numbe sama jeeg ju baax joojoo nga fa. waaw waaw man bañ ma takkee gaawaan laa wàcc di. waaw waaw këru cosaan baa nga fa. <laughs> Eh, est-ce que sama papa sama papa ak euh, tonton Youssou Ba. ñoo ànd ay ami d'enfance lañ. Youssou sa baay la ndeysaan mais tax sa baay la. ndeysaan moo tax man maay sa yaay. ndeysaan kenn ku neexul incha allah. ok léegi daal pour ah. finir Pape waaw maa ngi woo ñëpp. ayca zos le trois bisu zos. waa yaay booy <laughs> léegi kon dañuy jeexal dañuy jeexal ak zos ah. waaw zos ak Aïda Samb ak sa doom yi. waaw ñu may la Youssou Ndour xam nga lu Youssou wax. ah nee na. ah ki la toppee Mboro. waaw baloo def mu sànni ca xeer. waaw bàyyi kook rabbana ah te xam ni bésam soriwul. Euh, voilà Zos nee mu ngi lay jaale Thié. waaw jërëjëf jërëjëf ak yaa Fatou. Thié xaritam la di sama doom. damaa bëgg nga toog fi nga toog nag fecc ko ak ñun yaay. looloo neex. yëngalal say mbagg rek ayca Zos bu jeexal ñëw leen ayca leen. waaw dañ koy jeexal rek dañ koy jeexal rek ayca leen ñu jeexal ko rek. dañ leen ñu jeexal ko rek. yaa ko tewaat songu daan ko yaa ko tewaat nit ku baax ku la yëg nang fa dem jàppante waaw buur yàlla sama waay